أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته direction Dakar Pikine ca a ju mag ja ca complexe islamique yaay ami foofu la ñu jëm dimanche 11 juin 2023 ci ndégalu sunu baay Omar Niang xalifa sunu maam Ahmadou Bamba Niang ak njabootu maam Ahmadou Bamba Niang yëpp oustaz Ilaaji Ñang directeur général complexe islamique yaay ami ak mboolem personnel bi mu ko bokkal yëpp ñu mën ci noté oustaz Aline Diop ak oustaz Ibrahima Dia waaye tamit ki nga xamante ni bi moo nekk présidente parents d'élèves yi kooku mooy soxna Xalimatu Si waaye tamit sunu yaay daara soxna Anta Diop waaye tamit soxna Ayda Kan moom itam nekk présidente parents d'élèves ci côté alimentaire bi moom itam doon ko am taxawaay le directeur le personnel et le APE du complexe islamique yaay ami ñoo leen di woo ci conférence bu mag maanaam bi nga xamante ni bi dañ ko fas yéene amal dimanche la 11 juin 2023 muy amee foofee ci Pikine ay nomadi 3 ñu koy defee foofee ca terrain ASC Penc nu si woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw amul xëj ji seen waaye tamit ñuy sàkku képp koo xamante ni bi yàlla mën loo na la ko waaye tamit sa xol àttan ko nga jël sa ñàkk dugal ko ci bés yu baax ndax bés yu gën a mën a taaru sous le parrainage de monsieur Mamadou a maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao monsieur Thierno Ngom opérateur Mose Mali Gakou, président du Grand Parti Monsieur Mbaye Sylla inspecteur impôt et domaine Monsieur Pathé économique nekk parent d'élève boo xamante ne bi bu taxawul daara ji la jàppale daara ji lool Monsieur Maguey Seck coordinateur départemental di parti Bestu Ñakk Monsieur El Hadji Fall président du mouvement Sunu Off Time Monsieur Pape Mamadou Thioy notable waaye tamit Monsieur Moussa Niang président du mouvement dal Serigne Fata Sarr responsable du mouvement Adnaawul Xadaratu Tijaaniya waaye tamit marraine soxna Mariam Diop jigéen ju mën góor ak waa daayira sopp na bi borom taxawaayu rafet yi ajaratuma jigéen Diop bu assance waa kër Rasoul waaye tamit soxna Assu borom aéroport international Blaise moom itam doon jigéen ju am taxawaay ñii la waa complexe islamique yaay ami tànn ci biir tànneef daf leen ay marraine d'honneur ca bés ba ndaw lu rëy Serigne Mohamed Seck moom Serigne Souleymane Seck borom xaas kooku mooy sëtu Serigne Cene ba maam Umari Ndaak Seck hommage ñi ma bëgg wax imam Idrissa Diagne nekkoon imam foofu la ci ay nomade 3 waaye nekkoon ku yàlla baaxal waaye tamit imaam Omar Niang moom itam nekkoon ku taxawul lislaam bi bu nu yàlla dafa lay fekkee ak tal ba ca bés ba bëccëg ànd ak jantam guddi ànd ak weeram programme bi nii la fas yéene tëddee bu nu xëyee wiital ci suba si ci la élèves yëpp di génn nag amal démonstration boo xamante ne bi bu am solo la maanaam maaj boo xamante ne bi ëpp naa tardé buñ sa noppee nag dugg ci programme bi maanaam tari bi waaye nag ci biir bi dinañ fa amal conférence bu solo conférencier bi mooy Oustaz Makhtar Sarr thème ba nu fas yéene waxtaanee mooy maanaam njëriñ li nga xamante ne bi moo nekk ci téere bu sell booba di alxuraan bokk loolu ëpp naa tardé waay dimanche 11 juin ca terrain ASC e penc ba nekk ci Pikine ay domaadi 3 foofu la ñu amalee conférence bi dool ci woo ñëpp góor ak jigéen nag ak ndaw kon daal mbokk yi aaya ba wàcc na yaa ayyuhal lazina amanu stajibu lillahi wa li rasulihi isa dahakumu lima yuhiku alxuraan woote na te ay ñoñom rek la woo nag fépp fu waay mën a dugal alalam lu mu baax baax yaakaar naa ne fii la gënee kon nag ahlul xuraan doole leen alxuraan waay 11 juin 2023 ca Pikine ay nomades 3 mani ku mën a ñëw na nga ñëw ku mënta ñëw sax na nga ñëw ku xool ba xool seet ko ba seet xam ni mënoo ñëw it na nga ñëw asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaassa واعلموا أن الله شديد العقاب